daana jëf daana waar ji ña ca kër ya jaamu yàlla ak liggéey ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara lam ca bind cër la woon cay jaara am na sañ-sañ bu rëy ci buur bi di yàlla lum ko ñaan daal mu may ko ngir moo di jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara lam ca daa bind cër la woon cay jaar sëñ bu rëy ci buur bi di yàlla lum ko ñaan daal mu may ko mbir moo di jaara cheikh abdul ahad waxam jaaka yéeme nettilil ngir nu dolli waaru ci jaara nooni lislaam bañuy fexeel seyxi bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaara maam bu safar fa teew ba génne fa xaadim naa ko say xil xadim wéyal man la jaara ku fi am say xi bamba am soxna jaara wara sax na an jaara ma soxna jaara ñoo ngi ñaan barke ak ngërëm ak gudd fan wér gu mat defal nu ko jaara may nu kattan ñu jox ko kay sayxi bamba may nu wërsëg ñu jox ko kay doomi jaara dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigal nga àddina wóor na yaanu jox say xibam ba jaaraama jaaram jaaratuleehi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léggéey kamay soxna jaaram soxna baaleeg maam buso mbaa ne jaara am nga tawfiix ku gëm fa tudde jaara ah. <laughs> turandoo jaara ajjanaay wàccu waayam koo mën doon santal ci mbaax gi jaara bu sa baali manoon ci kër man ci jaamoo fa mu jaar nit ña yeemu rey soxna jaara gëm na yàlla yónneen ba xam say xibamba xam na boppam ba far mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër ya jaamu yàlla ak liggéey ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alxuraan xam na jaara lam ca daa bind cër la woon cay jaara am na sañ-sañ bu ci buur bii di yàlla lum ko ñaan daal mu may ko ngir moo di jaara cheikhi abdul ahad waxam jaaka yéemi nettilil ngir nu dolli waaru ci jaaram Cheikh Abdul Ahad waxam jaaka yéemi nettilil ngir nu dolli waaru ci jaaram nooni lislaam ba ñuy fexeel Bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaaram mam safar fa teew ba génn fa xaadim naa ko Seyxil Xadiim wéyal man la jaara maam bu safar fa ba génne foo xaadim naa ko sayqil xadim wéyal man la jaara dinga am ndam lu rëy ba del si ci réew mi dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara ku fi am seyqi bamba am soxna jaara war a sax naan jaara ma yow soxna jaara ñoo ngi ñaan barke ak ngërëm ak i tawfiix gudd fan wér gu mat defal nu ko jaara may nu kattan ñu jox ko kay Cheikh Bamba may nu wërsëg ñu jox ko kay doomi jaara noo ngi yalwaan noo ngi sakko noo ngi tallal may nu daal man nga ko ndeyaay soxna jaara jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alxadim doomi jaara dikk nan tey gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xibamba jaara ma jaara jaara tulleeyi mooy turam wa ñu jaamu yàlla ak ko may soxna jaara soxna baaleek maam bu sombaañu ne jaara am nga taw feex ku gëm fa bal tudde jaara turandoow jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci mbaax gi fi jaara bu sa manoon ci kër man ci jaamu fu mu jaar nit ñi mu royi soxna jaara gëm na yàlla ak ba xam Cheikh Bamba xam na boppam bafar mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër ya jaamu yàlla léegi ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara lam ca daa bind cër la woon cay jaara am na sañ-sañ bu rëy ci buur bii di yàlla lum ko ñaan daal mu may ko ngir moo di jaara seyxi abdul ahad waxam jaaka yéeme nettilil ngir nu dolli waaru ci jaara nooni lislaam ba ñuy fexel bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaara malaayika teew na ngir dañoo sopp bamba na ji ñuy jiima dimbale doomi jaara maam bu safar fa teew ba génn fa xaadim naa ko sayqil xadim wéyal man la jaara maam bu safar fa teew ba génn fa xaadim naa ko sayqil xadim wéyal man la jaara dinga am ndam lu rëy ba delsi ci réew mi dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara ku fi am sayqi bamba am soxna jaara war a naan jaara ma yow soxna jaara noo ngi ñaan barke ak ngërëm ak i tawféex gudd fan wér gu mat defal nu ko jaara may nu kattan ñu jox ko kay sayqi bamba may nu wërsëg ñu jox ko kay doomi jaara noo ngi yalwaan noo ngi sakkoo noo ngi tallal may nu daal man nga ko ne yaay soxna jaara fu fi waay tollu amiin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu jëf ba sant fi jaara jërëjëf rabbuna jaraw lakk baali hëkkadaa say xinal xadim doomi jaara